acca salaamaaleykum internet yi seetaan Ngoy TV ah ñu ngi leen di bëggee fi leen daan bëggee ci seen site internet Ngoy TV waa dafa am lam ju am suba terrain gaal gi ak Cardy Production ah. moom moo woote suba fi nga xamante ni gi tegal mbir yi 2 millions gis ngeen ko nonu affiche baa ngi noonu kon ñu ngi fay woo ñëpp ah bàyyiwuñu kenn bépp lutteur boo xamante ni yaa ngëm rek Don bere di bere bere simple wala bere farab sax yor licence simple pourquoi do ñew tan sa sas ci papat mi ha acha carte de production ha ah, mo wote suba téré gal gi tegal mbeur yi 2 millions gaay tel len ñew tel a bindu tel len ñew tel a bindu du yomb de 2 millions ak 31 décembre bu jëm ni 24 baxna sama gaay ngoy tv mu nga fa ak yena ah, gis ngeen affiche baa ngi noonu ngeen di xool ñëw leen teel ñëw incha allahu rabbi ah ak carte de production du yomb mbayang lum moo fay nekk a ah, du yomb ñëw leen gis ngeen affiche bi noonu ah ñëw leen ngeen bindu a ah, ngeen béré ah Kemeer gañ ah ñu ngi fay seentu champion yi yëpp nag ndaanaan yi ah yéen ñëpp ponkol yi yéen ñëpp ñu ngi leen fay seentu ah gaaw leen ñëw ak carte de production ah, ci terrain gaal gi suba la incha allahu rabbi dimaas ah le 18 incha allahu rabbi décembre bii nii ah ak 2 millions CFA kon ñu ngi leen fay xaar gars yi bàyyi ñu kenn ak carte de production acca sama gars yi du yomb